kan moom ci ndoddam lay tegu ndax ci nguur gi la wala moom c'est sa responsabilité propre. xam nga asma. Hmm. luy jëm ci biir. Hmm. du affaire u caaxaan. Hmm. man doo ma kaso. ba pare ne ma yow li ngay lekk. man maa la koy jox wala nekkul loolu la. suñu waa kër kay ñoom euh, euh, euh, togg. indil ma loolu prisonnier yàgg na ko def rawatina nag politique rawatina koo xam ne dem na ba yegg fii ma yeggal ñoom. Mm-hmm. yow man ak yow rek nii rek rek nañ xuloo xuloo bu ndaw. Mm-hmm. mais boo ma joxee ndox du ma ko daal. loolu nekkul sax une question dañu ne Afrique lañ ne wala mais du du loolu. loolu xoolal amul mystique amul dara man ak neexoo rek. Mm-hmm. mais boo ma joxee ataay sax ma jàllale kaas bi mu a xoolal daf maa wóolul kat moo tax nanguwul naan. mais maa tey mais nañoo xam te dëgg. lekk bi mee sama kër daal man bu ñëwee. ma lekk ko. bu ah, mu jaar seen loxo itam. lu ah, may def. mais est-ce que mën na nekk loolu. non jaar seen loxo jaar seen loxo moom ala kulli alin ala kulli alin parce que ki la koy indil du yegg si yow ba ci chambre bi nga nekk. mais kon naa ca kaso ba. Mhm. mais yàlla minimum. Mhm. le minimum xaw ma lan su andi ñëwee ma xam ne man andi ñëw ñëw na. Mhm. ma ñëw ñu jox la ko nga jox ma ko. mais na xam nga ñoom su am bi ñëwee dañuy jël ay lañ dugal ci. di jékki waaw. xool d' accord. non non non ñoom kay bu dee sëpp dinañ ko jékki. ba xam la fa ba ca dëgg la di. dégg loolu. mais loolu yëpp bu ñu koy def. mais nga teew man de sama ànd bu ñëwaat. léegi fekk. ñu def ko takk ko takk ko indi ko nii teg ko nii. tekki ko sa kanam xam nga li ma la xool ba xam amul yu ñu ca dugal ak yooyu nga jël sa bool nga yóbbu. nice good fine. waaw kon tey bu état am aggravé woon pour tëj peut-être. non mais loolu noonu loolu noonu. Mm. lañ ko war a nangul mais waruñu ko wax rek ne ko doo yërndu ci diggante boobu nag moom moo tey ne diggante bii nag sama waa kër ñëwee ak sama añ dara du fi dox. mais loolu loolu et loolu neex naa lijjanti nawet yow yow bu dee yow jàmm rek nga nar. ci ma